takk-der jàpp nañu ko démb ci ngoon ab complice am ñu njëkk a jàpp ci suba si moo yoole waaji gaañi wër ko ba gis ko jàpp ko autopsie bag la ci tukke libération nee nañu dàq na wax viol nee na li faat jigéen bi moo di xoj gu metti gu ñu ko xoj loolee moo ko xët mënutoon a nooyi ba ci la jaare ñàkk ba kanam am na it lu ñu ko dóor pir bi nañu Anta Njaay di xale bu jigéenub juróom-ñetti at bi dëkkoon ca Bargny dañu ko sàcc bu nuppi rey ko vox populi nañu ki ko rey jàpp nañu ko démb enquête dina kay xii jàpp gémmiñam boole ko yéemu ci bakkan yu bari yu ci réew mi ci Mali foro journal bi nañu ci ay fan yu néew gis nañu ci réew mi ñu ñu fi faat ak ñu fi doon jéem a faat ñu rëcc ci ñoom am na ca ñaari tuut tànk kirim yi ak ni ñu melaat ci réew mi anki dina kay ni ñu moojoo askan wi ci njàqare li joo woon askanu Sénégal ciw naqar di mbirum dem si yàlla asu soxna journal bés bi le jour moom la xëyee bésu tey ba di ñu wax ne coow ak mbambak pression yi ci amoon lépp ci njégale la mujjee njabootu dem si yàlla asu soxna jéggal nañu waa hôpital Amadou Sakhir Mbaye Boulouga baal leen ginnaaw ab médiation di tànki jàmm yoo xam ne kilifa diine bii di Cheikhna Bachir Tall dox na ko ca le mandat nañu doonte famille omarienne bi dox nañu ci ay tànki jàmm def ca médiation ba waa kër ndem si yàlla asu soxna baale waaye loolee du tee yoon di justice moom dem ca ba jeex bés bi le jour jëlaat kàddu gi di ñu fàttali ne juróom benn sage femme yi ñu ci faatuk asu soxna ñeent ña ñu jotoon leen a mandat dépôt ñaar ña ñu bàyyi leen ñu dem seen kër ndaxub liberté provisoire ñoom ñëpp tey ji la taxaw tribunal ma taxaw ci tourisme bi ak ñaxtu yi nga xam ne ñi yëngu ñoo ngi koy def las l'info les échos vox ne dana ko def ngir suqali tourisme bi ci Sénégal dara la ca deful ci laas mu ne ñu foog ñun dañoo mel ne amuñu ministre du tourisme bu Sénégal di Aliou Sarr lise ko nee nañu ñi yëngu ci wàllu tourisme bi jéppi nañu ko nee nañu Aliou Sarr ministre transport aérien la gën doon ci ministre du tourisme yéenekaay bi dolli ñu ci ne racine si ak ñi mu àndal li ñu bëgg moo dañu teqale séparé ministre tourisme ak ministre transport de tourisme bi dénk ko beneen ñeent ña ñu jotoon leen a mandat dépôt ñaar ña ñu bàyyi leen ñu dem pénage bu baax a baax lii quotidien di ko dëggal ci xëtam mu njëkk ba dañuy wax ne ministre microfinance di Zahra Iyane Thiam moom ak ñi mu àndal dajale nañu juróomi junni parrainage cinq mille parrain ci ngir Benno Bokk Yaakaar ñu bokk daje ji ci libération lu doy waar yéenekaay bi nee nañu moom la ñu def footballkat bii di Papis Demba Cissé bil bi deux milliards di ñaari milliards yu tojul dërëm ko dóor benn l'homme d'affaires bu ñu naan Mamadou Diène ñu gën koo xam ci Maadou ko ñandelañ set ay projet Demba Cissé dugg ci dugal ci ñaari milliards am ndeke projet waxi kese la ci la footballkat bi porté plainte gaañi mandat d'arrêt international maadu ba démb lañu ko jàpp ci aéroport Blaise Diagne